rek c'est parce que góom bi Ousmane Sonko nga koy faj bu baax a baax. dëgg la. lu ñu gën a yuuxu rek xamal ni ko ñoo ngi bomb góom bi. wallaahi mercure korob baa ngi ca saf-saf. waaye ma la alcool beeg mercure moo tax muy saf. très bien. moo tax nag li may wax mu ne. Mhm. pour daanal. waaw. maanaam lii nii coro. Mhm. manipulation bi yëpp yëpp yëpp yëpp ñun xam nañ fan la mujjee. Mhm. semaine prochaine gis nga suba xam nga Ousmane Sonko dee dajeeg. grand théâtre di wax sénégalais nañ dem grand théâtre suba. waaw. ci ba amul ticket amul dara. da ngay mhm. ba foofu jàkkaarloo Ousmane Sonko mu wax. Mhm. gis nga polémique suba bi polémique bi nar Sénégal à partir de lundi. Mhm. gars yi dañ nar a jëlaat yi wax Ousmane Sonko. wallaay commencé waat di ko tasaare waat di ko déformer parce que loolu mooy loolu mooy tax seen journaux di dox. si si loolu moo leen di dundal. voilà loolu ñuy wax manipulation. manipulation lañ nekkee parce que dafa am ay gouvernement étranger yoo xam ni Sénégal dafa dafa supprimer seen contrat yi mu amoon seen biir. Mhm. léegi nag contrat yi ñu supprimer du ñu bëgg nguur gi mëtal du ñu bëgg nguur gi doxal dañu bëgg nguur gi même sax élection législative yi nar a ñëw na yàqule. Mhm. moo tax ñu ñu daggati ay vidéo Ousmane Sonko di ko di ko tegaat ci tele bi mais Ousmane Sonko li mu wax lay waxaat rek. waaw li mu fooxoon rek lay liggéey. pare mhm. li mu rek. wallaahi. dafa ne su ma yéegee dinaa wàññi dund gi Ousmane Sonko yëg na jël na ay mesures yoo xam ne day wàññi dund gi. bien sûr parce que aussi tamit campagne agricole bii ñu nekkee liy wàññi dund gi la à long terme. Mhm. parce que aujourd'hui Thioro wax naa la ko sànq ne la pour wàññi dund gi du ñëw di tax yëngal. parce que tey jii bu fekkee da ngay jël quatre cent cinq trois cent milliards ci ceeb subvention yi huit cent milliards par anne borom ale yi jënd ceeb nga koy may rek. wallaay dëgg la. borom alal yi nga koy jox ñoom ñoo moom terrain yi ñoo nekk mbuurkat ñoo nekk ancienne piste ñoom la ñoom seen biir la. dëgg la. donc aujourd'hui kon Ousmane Sonko mënta jël alalu réew mi di ko joxaat ñooñu noonu nga xam da leen jàpp ñuy sàcc mënta nekk. mënta nekk mon frère. Mhm. parce que tey jii boo waree wàññi dund gi nga dem ba gis ne ñi subvention yi seen loxo lay jëm da ngay defaat attention. bien sûr mais na loo xam ne nag du du du du du télé lañ koy waxee. déedéet. Mhm. am na loo génn di ko wax ñëpp di comprendre. mais maanaam wax bu yegg bi dafa ko moom. bien sûr. moo tax population yi comprendre nañ. moo tax tamit may saluer rek xam naa pour bañ a jël antenne bi parce que. waaw comme que fi nekk ñi war a dugg leeral Sénégalais def rek coro vraiment. waaw di leen ñaaral. yàlla na borom bi nangu. waaw ñoom émission bi yàlla na nekk émission boo xam ne dangay taal ni ay un million de personnes di seetaan en direct. amiin ah, yaa rabbi vraiment lu amal solo la réew mi la. amiin ah, yaa rabbi yàlla borom bi nangu. di la nuyu. di nuyu tamit ñi nekk ci live bi di commenter merci beaucoup. waaw merci monsieur Djibril Gueye. yow aussi ñu la naw bu baax a baax sa patriotisme sa bëgg senegal ak li ñu gis yépp nga koy def ci sa doole te kenn fekku la ci. di la remercier di la ñaanal aussi loo mën ren nga mën lu ko raw déwén incha allah rabbi euh, am naa documentaire buy waaj a dugg léegi nii suba incha allah DK 221 waaw boo xam ni waaw dama ciy détaillé eurobond bi bu mu leen ak ay animation ak lépp pour sénégalais yi gën a mën a comprendre très bien waaw moo ngi waaj a dugg DK ci DK incha allah léegi rek na koo gaa yëpp kar incha allah rabbi di ngeen gën a comprendre euh, euh, li mu wax ci eurobond bi ak yeneen voilà Thioro kon boog jërëjëf merci beaucoup. merci beaucoup merci beaucoup la woon euh, mi nga xam ne moom moo bokk ci coalition euh, Diomaye euh, président dégg ngeen li mu wax. eurobond bi comme ni ko ñenn ñi di waxee di ko bëgg a étiqueté wala désinformer nit ñi ci ne leen waaw jaarale ko ci rek Ousmane Sonko moo ne woon du leb dem na lebi. c'est normal ni ko Djibi Gueye waxee ni mu ko tënkee ma tënkaat ko rek ci ay quelques minutes c'est normal eurobond ñu dem mu lebi ko. parce que kat Macky Sall dafay bàyyi déficitu xaalis bu baree baree bare ci ay milliards donc lu ñu manquele ci ay milliards milliards nguuru Sénégal bu jëliwul eurobond yooyu day am problème fii ak ay weer te demul ci européen yi demul ci banque mondiale comme ni ko jibi waxee demul ci kenn koo xam ne nii pour mu jox ko dafay koñe su demoon tey ji ci tubaab yi dem ci Macron ak ñeneen ak ñeneen ñu ne ko mën nañ laa jox bu ñu paree dañuy comp ci sunu baril pétrole yi nga xam ne dans quelques mois dinañu ko tànk te su boobaa eurobond bii nga xam ne nii jën nañ ko dinañ ko ci mën a fay dina couvrir yooyu dette ak dette fi mag sàll bàyyi dina ko mën a couvrir te it réputation bu baax moo tax ñoom tey ñu mën a dem uti ay eurobond ba am ko réputation réew mu ko amut ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy lebele lebele alal jooju ñu koy wax eurobond ay ay ay ay doomu aadama lañ yoo xam ne seen alal jooju ñu dajale tuddee ko eurobond ñoom ay ay ay liggéeykat lañ yoo xam ne banqaasoowuñu ci ay structure yoo xam ne kat dañu koy lebal ñi ñu ko war a lebal pare di leen toppaat ci fayma fayma joo xam ne dugal génne la dugal sàmba indi jóob wala dugal njaay jël jóob donc réputation la moom moo tax ñu dem ami eurobond te mënta ñàkk parce que li ñu fi li fi Macky Sall bàyyi ci sunu kees suñu kees keesu état bi dafa néew te xam naa ni fii ku ay fan yu néew wala ay weer yu néew gouvernement bi comme bëgguñoo def na Macky Sall defoon génn rek ca njëlbeen ga jooytu daan ne waaw euh, Macky Sall euh, Ablaye Wade bàyyi fi dara kees gi amul dara kon dañuy dem lebi ji xaalis daal di jël sa avion jël sunu kérosène daw dem ca Macron jébbali ko sa bopp pour mu lebal la xaalis pour mën laa tamit tënkaat ci sunu ay ressources ñoom defuñu ko defuñu ko donc nañ leen comprendre noonu te désinformation bi. ñu ñu teel a wan nit ñi ne leen mënoo leen ñoo désinformé xam nañu déjà ñun duñu ay Abdoul Mbow lan mooy eurobond nga tiit naan wax ko parce que li ñu def ci ci basan gi ak lu néew def ko ci ban yi ak lu néew jàng ko ak lu néew mën nañ ko ci olof ak ci français yeneen mën nañoo toog déglu lan mooy lan ak gëstu ci parce que lépp gëstu moom moo la koy may nit mënta jàng dara ba matale ko kon bu ñu leen désinformé ci wàllum eurobond yeeg yeneen dinañ ci gën a waxtaan incha allahu rabbi donc ci kaw loolu am information buñ ñu jox sànq que Malick Noël Dieng dañu ko teg loxo ci aéroport international international Blaise Diagne ci kanamu Diène Farba Sarr di mentoram mentoram ci politique ñu leen di wax ni information boobu dañu toogaat ki ko joxe ne elle est libre il libre moom Malick Noël Dieng mais jot nañu. ay nit parce que nee leen bala ñuy dem dinañu xool te biñ leen ko jox nee nañ leen ñu ngi ko jëlee ci wax Sow lañ ko gis mu mu publier ko léegi nee nañ leen dinañu ko saytu bala moo dem nee nañu c'est pas vrai du information bu fiable c'est pas vrai kon loolu taxuñu fee toog nañ jàll ci leneen luñ daboon la nañ jàll ci leneen parce que dañuy waxtaane tey jii euh, par samedi ku ne xam na ni furtu la ñuy def dañuy waxtaane lu bari bari bari ci ay information am na tamit léegi ku wax ku bind bëgguma cité turam nee na ma bëggoon a nettali contentieux bu mu am ci digganteem ak jegeñaalewu kenn ci jegeñaalew yu mag sàll yow mi ko wax yow mi bind léegi wax ko ci commentaire yi nga am problème ak kenn ci jegeñaalewu Macky Sall yi message ma message normal message ma normal man maa lay woon sama bopp message ma normal nga wax ma kan nga amal problème ak lan la ci tënk bu gàtt ci message normal wala whatsapp ci 77 520 88 80 ci le 77 520 88 80 après ma dinaa la jël su jaree ma yéegal la ci kaw ma yéegal la ci kaw nga expliquer ko àdduna bi yëpp di ko dégg kon maa ngi lay déglu yow mi bindu lool sànq ci commentaire yi donc ñi ngi ak euh, sunu journaliste bu xarañ bi di Ismaïla Seck mi nga xam ne jamono jii liggéey bi muy liggéey ci wàllu presse mi ngi koy defee ca diiwaanu France te kenn kenn du naatable xam-xamam te yéen ñi seetaan DKR di ko déglu yëpp gis ngeen revue yi muy def ci DKR gis ngeen euh, li nga xam ne ni tey ji moom mooy ay participation yi muy def par rapport ak actualité bi fii ci Sénégal mais tam xam-xamam kenn dootu ko naatable ak ni mu koy séddoo ak askanu Sénégal mu di tamit patriote bu mag a mag boo xam ne nii macha allah ñun mën nañ koo dëggal donc ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax Ismaïla Seck bàyyi la nga nuyoo ak mbokku internet yi ñuy déglu. salaamaaleykum Thioro maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax di nuyu aussi di ziar mbokki internet yi nga xam te ñoom ñoo ñu topp ci Dakar 221. Mm-hmm. di nuyu aussi bi nga xam te ni moom di ko félicité ci cours magistral bi nga xam te ni joxe na ko ci mm-hmm. eurobond yi parce que désinformation bi ni mu ko waxee noonu tàmbali woon na jël ampleur ci Sénégal te il fallait que koo xamante ni maîtriser nga ko nga ñëw expliquer Sénégalais yi carrément lan mooy eurobond waaye tamit lan moo tax réewu Sénégal recourir à ces eurobonds là ñu ngi ko ciy félicité waat bu baax a baax di xaar avec impatience aussi documentaire bi nga xam ni war na jàll ci presse bu Sénégal. Euh, dañu dem ba dañ daan faral di waxaan Sénégal presse amu fi groupe de presse yoo moo fi am amuñu ay groupe de presse dañu amoon benn professeur boo xamante ni daf ñu daan wax ni ñu bu ñuy évoquer la question de l' indépendance de la presse mu ne presse bu indépendante amul parce que chaque presse dépend de quelque chose ou de quelqu'un quelque chose boobu noonu c'est toujours de l' argent. quelqu'un boobu noonu c'est l'homme d'affaires ou l'homme politique bi nga xam te moom moo nekk ci ginnaaw presse bi di ko injecté xaalis wala yi mu fexe ba nga xam te ni presse boobu mhm. nga xam te ni moom moo nekk le modèle économique de ce groupe de presse parce que nekkul dañuy xaar xaar seen euh, recette ci publicité nekkul seen recette dañ koy xaar ci benn système boo xam ne dañ ko mettre en place pour mën a gagner seen vie dignement di fay seen ñoom ñuy fay seen i employé eh, di i kees wala ñu ni moom xëy na moom liggéey bi muy liggéey ci lay jël xaalisam di ko ci injecté mais pour am ay part ci wàllum politique gi soit mu jàkkaarloo nguur gi mu nekk dafay neexal nguur pour mën a dugg ci biir bu fekkente ni type de presse boobu la ñu am du ñu mës a jàng kanam ci ci ci Sénégal te itam dafa nekk danger boo xamante ni nii kilifa yi nga xam te ñoom ñoo ci war a àddu buñ ci àdduwul mën na yóbbu Sénégal foo xamante ni fu doy waar lay doon tey jii nii bu ma yoree sama xaalis ma ne tey dama bëgg a investir tey ci presse yow nga yor si xaalis nga ne da nga bëgg a investir ci agroalimentaire bu at bi déwee ñu ne la da ngay fay sur le revenu parce que il faut nit ñi xam loolu impôt ci li nga gagné ci loolu ngay fay impôt nekkul dañuy ñëw rek ñu jox la ay chiffres fantôme da ngay am ñu ne lii mooy sa recette kon ci recette yooyu noonu lii la ci nguur gi am hmm. donc yow yow mi xam ne danga nga ne yow ci alimentaire par exemple foofu nga bëgg a at bi jeex nga dem fay impôt man kenn obligé wu ma ma dem investir ci presse kenn forcé wu ma man maa jël sama euh, sama ci gër guy bopp ma ne ci presse laa bëgg investir ma dem investir ci presse bu at bi dee ñu ne man léegi man waruma fay impôt parce que presse la la investir au nom de quoi égalité la ñu wax équité la ñu wax lépp sénégalais ñoo yem droit moo xam nga investir ci santé boo yoree sax hôpital nga créé hôpital nga xam da ngay faj ay nit di fanq ay bakkan yu war a ak yooyu noonu bu at bi deewee da ngay dem nga fay impôt segam nag ñooñu di investir ci santé ñoo war a mën a fay impôt sàkkantuma ak yi nga xam te ni ci presse la fi mhm. donc tey euh, dafa nekk rek xam naa moo nekk sama sama sama sama introduction mhm. mais li nga xam te moom laa bëgg ñëw tey wax ci carrément mooy mhm. Sénégal dafa nekk jëngal la woon ci ci bi xam te ni la fi Macky Sall la nekkee woon maa lu nekk am na fi lépp loo xalaat ni war a tam mën a xew ci biir société boo xam ne ay nit ñoo fay judd mu ngi doon am ci biir réewu Sénégal gis nga boo xoolee semaine bi nga xam te moom la ñu génn journaux yi xam ne titre nañ ko ci ay skandaal kenn mënul wax nu mu toll. soo koy liraat ñu ne leen lii ci biir Sénégal la xew sax da ngay tiit. wallaahi boo xoolee tey am na scandale boo xamante ni mu ngi ñeel euh, wàllum exploitation minier boo xamante ni ay indien du ñu ay sénégalais de ay indien yu jóge Inde ñoo ñooyu di exploité euh, benn benn benn benn kii mine boo xam te mu ngi ci biir Sénégal nekk ci dëkk boo xam ne ñu ngi koy wax Kéniéba ñoom ñu di ko exploité. de manière frauduleuse te dokkuñu ay doomu Sénégal di ko jël di ko yóbbu di ko jaay ci bitim réew di ko def noo xamante ni moom moo leen neexee ci biir réewu Sénégal nguur gi fi nekkoon di leen seetaan ñoom ñi def yooyu boo xoolee li nga xam te jot nañ ko exploité foofee nga xam te moom moo di ca Kenya ba jot na toll ci luy toll ak cinquante trois mille tonnes de minerais cinquante trois mille de minerais moom lañ fa exploité jaay fu lu toll dix neuf milliards de francs CFA loolu lépp mu doon am ci biir réewu Sénégal ñoom ñu jël ko di ko di ko yóbbu ca dëkk bi di ko yóbbu fi nga xam te moom moo di Chine bi nga xamante ni nag suñuy enquête kat ci fan yii ñu génn def nañu ci ay enquête gis ci ay société yoo xamante ni am na lu ñu ciy woowee GH Mining Sarr am na boo xam ne ñu ngi koy woowee Falcon ressource ak ñoom nag ñu ngi nekkoon ci benn mine boo xam te ni moom lañ doon wax benn mine bu nekkoon ci sud euh, mu ngi nekkoon ci Madina Fulbe moom moo boole ñoom ñi seqoon mine boobu doon fa liggéey tolloon ci ay parts yoo xam te dañ ko waroon ci soixante de francs CFA journaux yi lañu nag li nga xam te kon moom la waroon a jël yëpp yóbbu ko ci Chine ak yi ñu jotee exploité mooy plus de cinq cent milliards de francs CFA territoire bi nga xam te ne nag enquêtekat yi topp nañ loolu noonu topp ko dem nañ ba ci Cambérène ñu gis fa benn entrepôt boo xam te mu ngi woon foofu foofu lañ doon stocké li nga xam te moom moo nekk minerais yooyu noonu ci lu toll ak cent quarante conteneurs yoo xam te jot nañ ko sele bëgg ko yóbbu ci dëkk bi nga xam te moom moo di Chine ci boobu lañ leen jàppee nag daal di arrêté li nga xamante ni moom moo nekk euh, processus boobu noonu. mu nekk loo xamante ni kon ay doomu indien ñoo nekkoon Sénégal di exploité suñuy miin ci loo xamante ni suñu nguur nu yëgu ñu tënum parce que ku nekk xam na tey sites yi nga xam te fa la ñuy exploité euh, yenn minerais yi wala mu nekk yenn richesse yi nga xam te mooy jóge ci sous-sol bi dafay nekk loo xam te c'est gigantesque lu rëy a doon. Mm-hmm. donc nekk loo xam ne mën nañ ko def nguur gi mënu ko xam. kon xëy na ñoom am na loo xamante ni taqe nañ ca wala tamit am na lu ñu leen cee neexale ba tax ñoom ñu daal di muur seeni gët ni gisuñu mhm. waaye tamit scandale yi nga xam te ni presse bi dikkaat na ci ci semaine bi nga xam te moom la ñu génn bokkaat na ci Banque de Dakar Banque de Dakar li nga xam te da koy ñëw ci ay scandale bëri na chaque mhm. jour da ngay dégg banque de Dakar am na problème ak kii banque de Dakar mais ba tey ci ba problème fisc bi nga xam te am na ko digganteem ak nguur gu Sénégal ci benn chiffre boo xam te toll na ci cinq cent vingt cinq cent soixante deux millions soixante neuf mille huit cent quatre vingt quinze francs CFA lu jëm ci wàllum impôt te jamono ji lee nag nguuru Sénégal mënul fexe tey ba jot ci moo tax ba banque de Dakar war a dem ak euh, taxaw ak nguuru Sénégal fa nga xam te moom moo di ci tribunal bu ko defee tamit ñu xam ku nekk na fan nga féetee ci mbir moomu leen. Mhm. am na benn kër bu ñuy woowee Philippe Maurice ñoom ku nekk xam na ci wàllum cigarette la ñuy yëngatoo. ñu ne bi ñu xoolee ay comptam xool li xam te liggéey nañu ko moom itamit nekk na kër goo xam te ni la mu yoreel fisc yoreel ko impôt réewum Sénégal toll na ci un virgule sept milliards de francs CFA xam naa am na am na yoo xam te bu ñu koy lim tey ji dañ naan mais nguur gi fi nekkoon ana fan lañ nekkoon impôt yi wax nii fisc bi ñuy wax nii milliards yi wax nii yëpp xanaa amuñu woon ay nit yoo xam ci loolu lañ doon liggéey xanaa tey xam te ñoom ñoo nekk tey ci wàllum yoon xanaa daawuñu leen jébbal rapport xanaa daawuñu xam ñi nga xam te ñu ngi ko doon topp yenn entreprise yi nguur gi ñoom ñu lépp dégg muur seen i gët ne duñu ci duñu duñu beneen scandale bi nga xam te ni tey gën na ay bis bi nga xam te ni moom la ñu génn ñëpp xam nañ ko mooy problème mu ah, Adama Faye bi nga rakk la ah, ci soxla njiitu si njiitu réew bi fi nekkoon di Macky Sall. Mhm. Ah, xam nga question bi wax nga ko ci sa biir introduction yo mhm. koo xamante ni mën nga génn plus de cent cinq millions xobbet xobbet. Mhm. xaalis boobu noonu ku ne xam ne jógewul banque. wallaay. parce que banque banque doo dem rek nga am problème rek nga daw dem ci sa banque yi mu génne la ci jour bi nga daw fay ko gis nga am na benn politicien bu su ma juumul c'est le premier ministre Ousmane Sonko mu ne am na ñoo xamante ni xaalis bi ñu sàcc yóbbuwuñ ko ci banque ñu ko ci seen biir kër yi mhm. gis nga lii lu lu mel daf koy firndeel wallaay gis nga ñi ah, am na ci ñoom bu ñu jàqee parce que ñu ci bëri bëri xam nañ ni wala njortoon nañ ni bés mën na ñëw te bu ñu hmm. demee ci banque yi du ñu pour ñu fay du yombe noonu man lañoo tëdd te bu ñu tëddee euh, mën naa am sax négociation yu war a ba ñu mën leen débloquer xaalis du am ñu ci bëri jël xaalis boobu noonu am feneen foo xam te fa lañ ko dugal te loolu gis nañ ko tey nii bëri na tamit yeneen scandale yoo xamante ni presse bi di gàtt na ci ci ay bés bi ñu génn bu ci demee ni li nga xam te moom la ñuy wax benn usine de dessalement de l'eau de mer bu nekk ci euh, fi ñuy wax la Grande Côte maanaam ndoxu géej bi nga xam te dafa wex xorom usine boobu noonu li ko yëkkati woon mooy bu fexe ba ndox moomu noonu ñu dindi xorom bi exploité ko ba nit yi di ko mën a jëfandikoo mhm. état ci période boobu noonu nga xamante ni vingt mars deux mille vingt quatre loolu loolu yàggul sax mooy bi nga xamante ni nguur gi fi nekkoon mu ngi waaj a randu nguur gu bees ngi ñëw ay fan yu néew rek moo doxoon ci diggante bi ci période boobu noonu la nguurug Sénégal daal di signé benn partenariat ñu date bi nekk exactement le 20 mars 2024 ak benn société ngir société boobu nag daal di euh, du saytu lépp lu jëm ci wàllu dessalement de l'eau de l'eau de mer ngir nag ñu mën ko jëfandikoo mën ko def ndox boo xamante ni ndox bu nit ñu man di jëfandikoo la mm-hmm. ginnaaw nag bi nga xamante ni woote nañu ñi nga xamante ni ñoo représenté état bu Sénégal représenté nguur gi ngir ñu xool naka la ñuy daal di xaatime contrat yi ki nga xamante ni moom moo nekkoon ministre de l'hydraulique ci jamono jooju la bi hmm. réunion bi taxee ba ñu commencé war a tàmbali waxtaan dana leen daf leen woo mu ne leen. Hmm. balaa dix huit heures dix neuf heures na ngeen ma yónnee procès verbal bi wone ni accordé ngeen li nga xam ci moom moo nekk euh, contrat boobu noonu signé ngeen ko donc ce qui veut dire que waxtaan xool naka la contrat bi war a demee ndax li jaar na yoon wala jaarul yoon lan moo ci war a nekk tey ji paaru Sénégal ak déet amuñu jot boobu noonu lu ñu mel tax na ba amoon na koo xamante ni moom ah, bokkoon na ci ñu teewaloon góor gi ñu koy woowee Mafal Fall dafa jóg moom ah, moo teewaloon waa primature dafa jóg mu ne leen li ngeen xam ni noonu ngeen bëgg a doxale tey ah, seen diggante ak entreprise bii nii jaarul yoon. te mm-hmm. nguur gi ñu yor tey bis bu daanoo képp ku fi ñëw. dina seetal mbir moom nga xam ci moom ngeen fiy def corps de contrôle yi dinañu def ay enquête te dañuy bëral li nga xam te moom moo di rapport te mooy li nga xam te moom moo xaw yi ñu ngi tiiree tey information yi ci rapport corps de contrôle yi mm-hmm. donc ki nga xam te moom moo représenté woon tey ministre de l' intérieur ci bi nga xamante kon ñoom ñu ngi jànno ak ñi nga xam te ñoom ñoo yor lu jëm ci wàllum yoon ngir daal indi leeral ci dossier boobu noonu li nga xam te xamle nañu ko mooy yoon na def liggéeyam ci contrat boobu nga xam te SONES ak nguuru Sénégal woon nañ ko ak benn entreprise étrangère ci lu jëm ci wàllum dessalement de l'eau de mer ci grande côte bi nga xam ne ni kon ay irrégularité moo entaché boobu lépp contrat te entreprise bi nga xam ci moom moo ko doon saytu tudd Aqua Power benn entreprise boo xamante ni kon moom moo doon saytu loolee ci tamit nguur Sénégal li nga xam ci waroon na ko ko fay tolloon na ci quatre cent cinquante neuf milliards de francs fois ci trente ans ci fanweeri at la ko waroon a fay loolu noonu ci tamit loo xam te ni du jot subvention Mm-hmm. donc loolu mooy contrat bi nga xamante ni xaatimoon nañ ko ak ñoom te deux mille vingt sept la waroon a tàmbalee fay li nga xam te moom moo nekk koppar yooyu société Aquapo boobu nag société saoudienne la boo xamante ni kon nguuru Sénégal moo xaar ba nga xamante ni daal ay fan yu néew moo ko ci dese nguuru Macky Sall si signé ak ñoom yooyu lay xeetu contrat nga xam te ni dara jaaru ci yoon mais bokk na ci information yi nga xam ni aussi euh, boo koy xoolaat ba ngay xam ni Sénégal bëri na ñoo xam te ñu mën a tàppale lañ ñu mën a juuj njaaj lañ mm-hmm. ndax am na benn journal